loo yof mu ne moom dafa bëgg ko tàqaleel lan mooy farata ak lan mooy sunna waaw euh, umuloo yof farata daal huwa allahu farata mooy yàlla allahu huwal fardu yàlla mooy farata farata mooy yàlla sunna nag mooy muhammad muhammad mooy sunna soo bëggee dégg wax ju gën a am sens léegi nag farata boo ko defee dañ la fay soo ko bàyyee dañ la mbugal man taraka fardan yuaqibu farata ko bàyyi ñu mbugal la waaye sunna ku ko bàyyi kenn du la mbugal waaye mu ne nag wa man taraka sunnatan laa yuaqibu sunna boo ko bàyyi kenn du la man faala sunna yu sàbbu sunna ku ko def ñu fay la waaye boo ko bàyyi kenn du la mbugal kon nag su fekkee dégg nga ko daal mooy farata ak sunna daal boo bëgg a teqale farata daal boo ko defee ñu fay la soo ko bàyyee ñu mbugal la sunna nag soo ko defee ñu fay la soo ko bàyyee kenn du la mbugal wa sukran si laaj